na nga xam ne nag tontu nañ ko nee na nag léegi bu waxee keneen dootul tontu moom mooy tëj li nga xam ne mooy euh, tontu yeeg wax yi Abdou Diouf lu tax muy tontu nee na parce que dafa bind livre am koy teg nit ñi commencé ŋàññi te xamuñu lu tax mu bind livre bi li des moo ëpp waxul kon nag li des nee na tey la koy wax kon mbokk yi boo leen ko bëggee xam na ngeen ñu topp Moustapha Niass bi Ablaye Wade wax ne dafa bëgg daanal Macky Sall pour jël place am na Moustapha Niass ba tey Saalum nee nag bu demee Saalum dana mën na naawtal ki yow xam ne euh, euh, Louga euh, waa Kébémer Kébémer la dana nekk loo xam ne guerre mystique lay doon Karim Wade ca biir prison ba muy bind lettre pour wax waa francophonie ne moom dafa nekk ci métit lettre boobu nag ñëpp publier nañ ko ci journaux yëpp nee na nag dina fexe ba président yi teew xam ne daal moom dafa nekk ci souffrance ak métit boo xam ne dañ ko ko teg te wax dëgg yàlla keneen teg ko kudul Macky Sall dina ñëw ci ki nga xam ne tamit moom mooy Déthié Fall bi ab Idrissa Seck yónni ne ko nag fexeel ba mobiliser li nga xam ne moom la Ablaye Wade bëgg bëgg Abdoulaye Wade nee na bu amee un million personnes dana daanal Macky Sall te un million personnes yooyu yaakaaru ko lu ci ay alliés ak ñi xam ne ñooy njabootam waaye nag Viviane Wade nee na day sargal jigéen ñi nga xam ne ñoo ko jàppale woon ba affaire ba réussir ndax gis na ne 80 pour cent ci ñi nga xam ne ñoo wuyu si ay jigéen nañu nee na nag mu ngi delloo njukkal Aïda Mbodj mu ngi delloo njukkal Ware Sarr mu ngi delloo njukkal euh, Tata Awa Diop ak Ndeye Cissé ak bépp jigéen boo xam ne nag da nekk ci biir PDS ak alliés yi nee na nag loolu ko def lu dul benn fête boo xam da koy maye muy maanaam tànn béeru bëccëg mbokk yi tey programme bi cinq éléments yooyu la ñu ànd ceeg Pierre da Silva bi nekk ci réalisation bi feggoog toog bi nga xam ne mu nekk ci son bi caméraman yi Abdou Diouf moo yor caméra centrale feggoog ki nga xam ne nag moom mooy euh, Malick Ka yor euh, caméra euh, nekk ca droite Matar Dia ne ca restaurant ba di wan ndax moom tey xiifa ko jàpp ña nga xam ñu nekk ca ambiance ba ki nga xam ne moom mooy Ndiaye yor ambiance ba ca kaw moom tamit feggoog ña nga xam ne yor percussion yi du Go Fall ak Abdou Fa Abdou Gueye ñoom ñoo nekk ca percussion ya tutu ma nga fa toog maman bi nga xam ne nag moom mooy maman Jaxate euh, maman Diallo moom ci boppam ñu naan ko Henriette moo yor li nga xam ne ku tax muy melax ñu am mbégte contentement ci ki nga xam ne moom mooy dërëm te nekkatul dërëm léegi junni la tudd ñu koy nuyu waa nuyu mam yi nga xam ne moo nekk ci décoration bi tamit nekk cuuj fii ci biir plateau bi ñu am mbégte contentement di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy père Assane Ndom yor sécurité intérieur ak extérieure te boobu la tuddee doom ba doom ba far ñëw nekk doom bu jigéen te bu góor la waroon doon saada naan ma doom bi jigéen la waaye yow laa koy tuddee ma ne ko Kouthia bu jigéen moom <laughs> maara day taane saada nañ ko aj ba beneen yoon mu ne ma kon dinaa programme beneen dans la semaine <laughs> loolu nar naa neex kon mbokk yi xam ngeen ne incha loolu dana cuqur dana neex te dana saf sàpp kon mbokk yi li ñuy nag moom mooy am mbégte ak contentement bu mag ñëw nag leeral loo xam ne léegi nañ ma ko wax te am na loo xam ne il faut ñu leeral ko nit ñi pour mu leer ca internet ba am na ñu ci bind loo xam ne dara amu ci nee nañu nag dañoo yokk Kouthia salaire am vingt cinq pour cent loolu ñu leeral ko fi ne loolu dara amu ci site internet bi ko bind ñoom liñ ca bind yëpp ay waxu kasaw kasaw la dara amu ci yokku ñu salaire fa mu nekkoon fa la nekk ba tey encore que ñu bàyyi bind information yoo xam ne juste pour nit ñi mën leen lire loolu bu amoon man maay njëkk maye sabar fii ñu def ko kon nag xëy na tamit euh, rafet njort la yàlla na ko yàlla def bu fekkee ne yéene boobu dañ ko am ci ñun ñuy wax nag euh, information boobu nekk ci internet bi te sama benn xale bu ñu naan Cheikh nekk ci États-Unis nee na la ko gis euh, firnde bi Bouba Ndour wax na ma ko léegi nee na ma félicitation mais ndekete loolu dara amu ci kon sit internet boobu loolu mu bind dara amu ci bu fekkee ne nag ñi nga xam ne ñoo yokk salaire yi dañ koo def nañ xam ne ne dañ koo bind te amuñu fenn fuñ ko teg nañ xam xam ne loolu amul te waxtu bi wax ak yéen euh, dara amul ci loolu ndax loolu bu amoon tey mbégte lay doon ndax yàgg nañoo bëgg loolu ndax kenn ku rek da ngay ñaan yokkute kon yokkute ko defalee nga bañ ne amul yàlla mën na koo rocci te fi ñu wax ak ba léegi fa ñu suñu salaire tolloon fa lañ fa toll te tiñ ci jàpp ba yàlla di ko def mu yokku loolu nag ku ko weddi da ngay dem xool ci internet ba boo ko gisee xamal ne wax jooju dara dara amu ci duñ doon topp ay benn site internet di leen war a waaye nañ jàpp rek ne ñoom dañoo rafet njort rek waaye njort boobu nga xam ne dañ ko rafet te mu nekk ay gàcc loolu nañ jàpp ne tous amu ci kon mbokk yi li ñuy moom mooy euh, daal di delluwaat di xool Sara <coughs> kay problème yi mu indil kay allo Sara Sara génne nañ ma de sama jabar génne na ma non nee na ma trop c'est trop waaw waaw ah mais tamit Sara nañ wax dëgg yow maa ngi lay déclaré ah ñëw goo ci plateau bi feeñoo sama jabar dama affaire bi ay mbokkam ñoo ko woo naan ko waa ji li muy café nii la koy def parce que nii la doon café ba takk la noonu lay kafe ba takk keneen ah tamit Sara waaw mais mais mais du ma def man dañ naa fat samay bagage la génne ci buntu kër yi samay bagage la génne samay bagage la génne mais koo xam ne dañ laa fat nee na ma kër kër ga génn fa maa ngi nii sans domicile fixe maa ngi nii ak samay bagage ah mais mais gisuma la dégguma la te da ngay ñëw ci plateau bi pour finaliser léegi sama jabar non non non xam nga non Sara déglu ma Sara man man non ragaluma ko. man ragalu ma ko de man signé wu ma dama signé polygamie laa signé mais tamit nañu waxante dëgg dina labat ci télévision bi ñëpp dégg ko ay mbokkam dañoo réagir déedéet Sara non Sara non non xamalal la man non non non non écoute-moi je te parle quelque chose de très clair non je peux pas continuer dans cette situation actuellement nii sama jabar lu leer wax nee na ma ay mbokkam ñoo ko woo ne ko yow amoo fula amoo fayda sa jëkkër toog ci télé bi di labat ah te doo def kii génn na ma ah, <laughs> ah mais man dama mais mais mais yow fan fan nga voyagé Saara daal man xam nga léegi lan la man daal Saara <laughs> garaawul quoi léegi xam nga lan la man daal comme que dañ maa génne <laughs> te sandaay bii kuñ ci génne wax dëgg yàlla doo xam foo jëm bàyyi ma ji ma dem dem village SOS bàyyi ma dem village SOS laa jëm bàyyi ma dem foofu xoolal ut booy utal ma benn néeg bu mu fay nekk en attendant association des des maris sortis maa koy jiite. non Saara non non xoolal wuy ma non garaawul man non du question billahi ragalu sama jabar wóor na yàlla ragalu ma sama jabar non non non ragalu ma ko mais la mais mais wax na dëgg parce que tamit mënu ma toog ci télé bi Saara Saara gisuma nee na buntu laay ut nee bu fekkee ne man dama koy def naa ko def mu gën mooy li may def nii moo ma def ko benn yoon ci fula fayda mais wax na dëgg moom ragalu la ah. daf ma génne ci biti daf ma génne te neen doolu ma jox dépense waaw mën nañ <laughs> du ma la nëbala mën nañu muuru <laughs> man man mën nañu muuru <laughs> waaw mais Saara man takkuma ko moo ma takk moo tax nga xam ne bu ñu ma génnee eh Saara bàyyi ko bàyyi ko non non non bàyyi ko jeex na non non non xoolal maa bëggoon léegi bëggatuma jeex na.